waaw Souleymane ya dox rek ma ñëw won leen parce que am na ñi bari ñi ma ko nekk di ko laaj jinjar bi ma dee defar wallahi lazim laa leen di wax nii de wallahi lazim barka de mbooy njaay du ma tudd tur <laughs> seekeera la dafa amoo ñu fi ñëw ma mosal leen si jinja bi waaye balaa ñoo génn sama biir néeg dox sa munuñ ko parce que lu xew Brahma Njaay bi mu ngi fessé bi tubé bi because of jinjar bi jinjar bi lu mo liggéey bari na a wiss ngeen xam ko wax na né lima ma def yépp natural té dina lay won ingredients yi man ma sama xol bonut Lima may jaay di ko def business bo soxlé ingredient bi bo mako waxé ma jox la ko nga def ko parce que suma wursek loxo yàlla la teleɗam ko jay waydanan non won ingrédient sima faɗe def gen defaral ko sen guure ɗi guur bu kon naan billahi wallahi tallahi gañin kali sabo min ke kewo keñin min ala ñem siñin ngawo mun seeɗoɗete munol yamin fo suuto duutalahi e koye man sino noon ana ingrédient ala ñe ñi musilla man siplete ñim beele bitala je ñim beele bitala je ñiŋ ñimmu horom pollet ñimbe la bitala je loriya la ñinti ñimbe bitala je jinjaru mun ko jinjaru la ngamin tu ñim fana nga beetitala bar almost three quarter bitala ñimu lem na kumolti ñimbe bitala je le kori la ñinti ñim fana bitala le ananase ñinti ñim fana bitala liyo nka wala kijeli kaba saba jinjaro ñim felentik I mix all these things, I combine them together and I have a very wonderful, nice juice mi ko A beta ya bata kitura, surtu ke mi yalonoko. Ibuka bamba no futu kono. Ibuka purelo akake problem not. Purunga juga labde neka problem. wallahi lazim ingredients yini lalawa li bol ko nane lalawa li neku demal yona instantly instantly lalawa dafa tooy mi billahi wallahi taala instantly i dee wokku gis nga limon bi yëpp lay def lii danga koo jël ma boole ko ak lii ne ak xool xooli bi ni ma baxal ko ba mu ndox bi ma jël ko ma seega ko lii lii no I wish you know the secret behind this lii moo nekk ingredients yi lii laa te gis nga fii ne yëpp natural la all these things are natural. You must see anything lo hamne. I'm not going to use sugalila they use. This is what I use. Wow. Munyene. Jel len ko. Waaw mën ngeen jël konak. nag